àjjana ndax seen réew lañ doon taxawu seen réew lañ doon euh, xeexal ba lii fekk leen si kon euh, ñi ngi leen di ñaanal yàlla teeru leen euh, ca àjjana yu gën a kawe te mën nañ am njort ci ñoom Charles xëy na nga <coughs> rek ci plateau bi ñi fi toog yokk si dara dafay kii c'est day woon rek combien nous avons des hommes yoo xamante ne jour yi jour et nuit ñu ngi taxaw fii pour ñun. pour mhm. notre propre sécurité. ñoom xam nañ seen dem xamuñu seen ñëw seen dikk xamuñu ko. et donc nous devons avoir toujours garder toujours à l'esprit que nous avons des gens yoo xamante ne. bu ñu doon wax si américain never let behind you your ñoom du mus a dem te bàyyi seen mm-hmm. ginnaaw donc loolu mooy loo xamante ni moom la ñu war a jàpp si ñoom et vraiment al tout à leur honneur di ma saw bu baax a baax tout le corps seen famille mm. et bien entendu tous les sénégalais parce que li sénégalais yëpp lay metti quand soldat sénégalais meurt euh, le peuple a mal donc euh, quand c'est quatre bien entendu nous souffrons tant que leur famille kon ñi ngi koy euh, jaale tout le peuple sénégalais ndax ni nga wax armée bu Sénégal ñun ñëpp euh, ñoo ko ñoo ko bokk euh, ci li gën a fës euh, buñ leen miinaleeg ñi fi toog bokk na verdict bi tukkee démb ci tribunal bu ndakaaru ñu delloo jël dogal juge bi jël dogal na ñu delloo Ousmane Sonko ci fichier électoral bi mu mën a wéyal Euh, dinañ ci taxaw euh, seetlu waxtaanee ko ñu amoon euh, yéene ci pàcc boobu ànd ceek Ayib dafe mandataire bi woon nañ ko invité ko mooy mandataire am mais dafa am gànt ba tax mu jul teew ñàkkul ba beneen ci beneen pàcc bi dinañ waxtaanee Barthélémy Dias sànq mi ngi doon jàkkaarloog taskati xibaar yi Cour suprême 22 décembre ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk ca lañ koy àtte moom nag nee na du dem mun nañ jàpp ni fippu na Cheikh Gueye euh, bokk euh, taxawu ñépp xam tamit ni muy taxawoo ni ki Khalifa ak euh, Barthélemy teew na fi dinañ ko waxtaanee ndax Barth niñ ko déggee mu waxee sànq wax wi dëgër na ndax waree na am taxawaay gu ni mel dinañ ko faramfàccee waaye it am na pàcc goo xam ni semaine bi coowu jama dafa lëmbe réew mi maître Moussa Diop mi yëkki woon kàddu yooyu doon candidat à la candidature jamono ji ñuy àddoo sànq juge deuxième cabinet mujj na ko mandat de dépôt ba tax euh, jamaa yooyu mu waxoon yëkki ci ay kàddu ñu jàppi tuuma jëme ci euh, bokk na ci ministre Aly Ngouille Ndiaye mu tudd ko ci waaye it euh, président de la république mu tudd ko ci tudd ci it Mimran Jean-Claude Mimran nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci wàllu euh, industrie suukar sa ca Richard Toll euh, loolu it euh, am na ñu leen fi ñëwal ñu war ci indi ay leeral laaj ak tontu dox suñu diggante kon ñu njëkk nuyu Cheikh Sadibou wala honneur à monsieur le maire. Mhm. te mooy seen doyen tamit balaa may dem ci mhm. honorable député ak ki ñi ngi lay nuyu Cheikh Gueye. maa lay fay di nuyu mboolem ñi ma bokkal plateau bi. Hmm. di am mbégte teew fii. Hmm. di wax ni maa fi indi sama bopp waaye fekk sama bopp ndax ñu may fekk ñëpp ay concitoyens lañu ay nit ñu ma xamoon démb ak bërki démb donc di am mbégte vraiment teew fii ci hmm. waxtaan wi di ñaan yàlla yàlla na waxtaan wi lépp di njëriñ hmm. njëriñu réew mi hmm. donc loolu laa bëggoon ubbee di la sant di la gërëm pour être complet tamit euh, gis-gis dinañ waxtaanee semaine du patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ba nga xam ni 2 ba 6 janvier lañ ko jàpp 2024 bi musée de civilisations noires Euh, le 6 janvier moom King Fahd Palace la ñuy dem ban euh, njeexital ak liñ ci jublu xëy na ñu taxaw seetlu ci waaye it satellite euh, bu Sénégal bi ñu réceptionné tey ca Toulouse gulet ban njeexital tamit la mën a am ci dund dunduni askan wi dinañ ko waxtaanee bu député Bounama Sall ñi ngi lay nuyu yaa fi ñëwal Benno Bokk Yaakaar. waaw der maa ngi lay fay. di mhm. nuyu ñëpp ñu may bokkaloo ak plateau bi. di mhm. am mbégte lool di fi ñëw. ndax comme li nga wax jàkkaarloo moom jàkkaarloo la tudd waaye jàkkaarloo la. Mhm. pour waxtaanee li nga xam ne moo tax ñun ñëpp eh, ñooy yëngu muy réew mi te ñu bokk ko. Mhm. mais nga may ma comme li nga wax rek tuuti ma def benn commentaire bu ndaw ci soldat yooyu nga xam ne mhm. suñu boroom ñoo leen moo leen moom ci mhm. euh, fi ñu doon liggéey yi man de bi nga waxee loolu <clears throat> sentiment d'humilité moom moo ma animé parce que euh, réew mi dafa am ñun ko bokkal ñu bari tam ci gis ñenn ñoo xam ne chaque jour ñi ngi tayle seen bakkan pour ñun ak suñu doom ñu nekk ci jàmm te kenn du leen dégg ñu wax kenn du leen dégg fa ne donc su leen loolu dalee fii au-delà ci euh, jaale bi ak euh, njukkeel gi leen di njukkeel aussi war nañ ci tirer ay enseignements par rapport à notre propre conduite ci lii ñu bokk noonu loolu aussi dafa frappé kenn koo xam ne ñoo bokk géopolitique bi te mu dëkk Daara Jolof comme man muy l'ancien ministre de l'élevage Ali Diop bu bokk réew mi moom aussi dafa perdre tey Ali Salah Diop way way ah, ah. dafa perdre soxnaam tey waaw ñu bokk benn koñ malgré bokkuñu fu ñu fii mais comme ni ñu mhm. doon wax la ñu bokk réew mi bokk ay valeurs yu bari yu ñuy partagé ma koy jaale di ko jaale toute sa famille di ñaane yàlla xarale ñoom ñëpp aljanna merci beaucoup Cheikh Sadibou Diop yow yaa ñëwal coalition Ali Nguy 2024 ñu ngi lay nuyu yow doo gan ci ci ci kër gi ak ci émission bi waaw Ablaye Der maa ngi lay gërëm di la sant. Hmm. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp. di beral nuyoo nag sama mag maire jëppal Derklé Cheikh Gueye muy sama xarit ñu yàgg lool. di jël nag nuyoo président Aly Ngouille njaay di ko jottali sénégalais yëpp. Hmm. waaye bi ma ko ñëppalee ñëpp. Hmm. foog ma ñennal ko ñenn ñi. ndax bu ma ko ñennalee ñenn ñi. di xam ni ñooñu ñooy senegaal damay dem ba Medina bàyyi jox ko Cheikh Baye Hadi Niass mu nuyul ñu xadra Baye Niass Maulana Cheikh Al Ibrahim dem ba Tiwaawan jox ko Cheikh Mouhamadul Xaafis si ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Xaafis xiiti bu Mauritanie sëriñ Abdul Aziz si Dabbaax defoon xaside bu rëy ba ca moom mu nuyul ma xalif général sëñ Mbay si Mansour balxaw mi bu ma demee Touba jox ko sëñ Bass Abdou Khadre mu ñu suñu kilifa sëñ Mountakha Mbacké ma leen di wax ni que président Aliou Ngouye Ndiaye ñoom ñëpp mi ngi leen di nuyu nuyu bi duñ ko yemale foofu dañuy dem ba ci jàngu bi jox ko monseigneur Benjamin Ndiaye mu nuyu ñu suñu mbokk chrétiens yi ziareel ñu leen te ñu xam ne ñu ngi leen di ñaanal jàmm ci réew mi ndax ñu ñëpp ñoo ko bokk euh, boo fàttalikoo jaar fii nii rek dinaa dem ba ci. comme ci almadi lañ ne Cheikh Cheikh Mbacke laay. Ah, muy sama xarit. comme da commencé ma wax ko mu ziareel ñu waa kër. laayeen yëpp waaw naa fa jàdd alors may wax rek ni que. mais grand sa introduction. waaye dafa gudd dafa gudd. waaye dafa gudd waaw mais am naa ci droit lu. da ngay politique. alors ma leen di nuyu da ngay politique lañ la wax. mais yéen kii day nuyoo. day nuyoo rek ngeen commencé naan ko day politique. kon nuyoo politique la nuyoo politique la. nan waxante dëgg. ah nuyoo bi moom ah nuyoo la. non non non te ñooñu ñëpp aaleeg leen di nuyu. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di ñaanal Sénégal jàmm ak xéewal ah Bouba ah, Ndour yow boo fàttalikoo bi ma fi mujjee mhm. sama message mhm. dama doon appeler au sens de la responsabilité Charles yaa ngi koy fàttaliku alors sens de la responsabilité boobu ci loolu la ñu nekk ba léegi di ñaan Sénégal yëpp ñu làmboo ko jërë ngeen jërëjëf Abdoul Haymou Daaf yow yaa ñëwal euh, parti alternance générationnelle AG jot na maître Moussa Diop jiite ko comme ni ko wax nekk candidat à la candidature ñu ngi lay nuyu. merci Der maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu sama naataangoo yi ma fi fekk yëpp ku ci ne ñu lay jox sa wàccuwaay. Mhm. effectivement di incliner wu aussi devant la mémoire de tous nos soldats qu'on qu'on qu'on vient de perdre je crois que am perte yi moom amul farfarloo c'est l'unité nationale qui doit être de mise dans ces cas donc ñu ngi koy naqarlu di jaale vraiment la république dans son entièreté di la gërëm aussi di la sant ci invitation bi parce que je crois que coow li la mën te yoon la que Moussa yoon yónni ay ñoñam ak ay nitam pour ñu éclaircir effectivement sa situation vraiment aux yeux de Sénégalais loolu moo fi waral suñu teewaay espérant que bu ñu jógee ci débat bi déjà que ce débat sera mené dans le plus grand respect dans le plus grand calme et de manière très dépassionnée pour que Sénégalais yi xam non non non viens. non je je pose pas je pose si c'est une manière de nous imposer le tempo. il faut laisser le débat avec son rythme naturel. ñaari excentré ñaari pivots yi liñ dawee doon Sonko. gan moom dañ yow yaa je suis mal barré aujourd'hui. c'est pas grave je l'accepte. c'est pas pour vous donner des ah, des ah <laughs> donc di xalaat ni rek di yaakaar ni en tout cas li ñu séntu ci débat bi mooy leeralal sénégalais yi. on parvenir en tout cas à la fin de ce débat là. inchallah pour faire court merci beaucoup. si chef d'accusation la ñu ŋàll seen leader euh, politique yéen na ngeen ko jàngee ak mandat de dépôt bi nga xam ne mujj na ko am. Euh, merci. je crois que euh, tey dañu am effectivement lu ñu metti am nañu lu ñu metti parce qu'on vient effectivement d'apprendre il y a pas longtemps que le juge avait décidé de placer effectivement maître Moussa Diop sous mandat de dépôt offense au chef de l'État ah, oui. acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves diffusion de fausses nouvelles diffamation contrefaçon de sceau de l'État faux et usage de faux pour être précis et complet. Absolument. Voilà les six chefs d'accusation qui ont été retenus. Euh, juste pour dire que ñun nous sommes des républicains. Hmm. Nous nous inscrivons dans un cadre républicain. Moussa Diop ci boppam loolu la gëm la République d'ailleurs bu ngeen di seetloo bu ngeen xoolee l'évolution de l'affaire dès que il a eu euh, de la convocation xaarul moom moo sol ay dàllam ne man kat woo nañ ma damay tontu ji donc je crois que ça boo nekkul républicain doo ko def c'est un républicain convaincu nous nous nous dans cette tradition là une décision de justice vient de tomber je crois qu'il est mal nous sommes mal placés en tout cas man en ce qui me concerne de la commenter mais dans le fond xam nga loolu peut-être mën nañ ni forme mais dans le fond li mu wax jama dafa am Sénégal ñun yëguñu ko sénégalais yi ba ñu koy exploité ni nga wax ak euh, bon ni mu ko waxee ak yu demee noonu ba mbir mi toll fii tudd ci euh, kilifa yu mel ni euh, le chef de l'État le ministre Aly Ngouille Ndiaye loolu tamit dans le fond aussi lu ci am. bon effectivement je crois que loolu c'est à c'est à la justice de démêler le vrai du faux parce que Moussa Diop xëy na ñëw def une conférence de presse et a fait des déclarations. il dit détenir les preuves grand wala waaw mu ne moom yor na ay preuves que lii mu wax loolu am na ñun ñi yàgg ànd ak Moussa Diop xam nañ ne c'est un juriste aujourd'hui il est incontestable qu'il est inscrit au barreau de Paris et que que que que que qu'il a l'habitude d'avoir des dossiers de justice yaakaaru ma ni Moussa Diop nayif na naïveté boo xam ne wala ñàkk na xel ñàkk xel boo xam ne dina dem di def des déclarations de ce type-là sans pour autant détenir des preuves maintenant nous disons et nous prenons toujours cette précaution-là on est dans un cadre républicain la justice vient de rendre une décision nous la respectons le temps que ñuy démêler le vrai du faux voilà c'est ce que je peux dire pour le moment ci nii Euh, Cheikh Sadibou daf ci bokk plainte boo xam ni dafa tukkee ci monsieur le ministre Aly Ngouille mhm. bokk na ci li yóbbee maître Moussa Diop nekk sous mandat de dépôt. Mhm. loolu tamit ni may wax accusation yi muy yëkki jëmale ci seen leader. jamono ba muy nekk ministre dafay am ay mine de jama yu ñu yu yu fi am yu ñu yëgul yu ñu xaatimoo gars yi di ko gérer nu mu demee. waaw merci beaucoup Ablaye Der may wax ni que. président Aly Ngouille Ndiaye se mhm. sentant diffamé mhm. am na droit dem déposer plainte pour diffamation moom loolu la déposer mhm. plainte bi mi ngi ci loxo yoon damay fàttali damay dégg nit ñi di wax ni que dañ ko convoqué woon kenn musul convoqué Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye président Aly Ngouille Ndiaye moo convoqué boppam ndax pour déposé plainte yaa convoqué sa bopp ndax nañ la woo pour entendre dossier bi mi ngi en instruction nañu bàyyi pour xool justice lan la ci dogal hmm. maintenant concernant la vidéo de maître Moussa Diop que je connais du reste pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime hmm. dama ko yërëm fi mu nekk nii li tax ma yërëm ko dinaa leen ko expliquer hmm. vidéo bi ñu seetaan ñun ñëpp maître Missa Diop mi ngi koy wax permis d'exploration au nord du Sénégal bu ma juumee ngeen gàgganti ma loolu la wax alors damay convoquer la géologie une analyse géologique des terrains diamantifères terrain diamantifère dafa am trois critères yoo xam ni boo ko fa gisul terrain bi munoo wax terrain diamantifère la et c'est à partir d'une analyse géologique lañ koy def da ngay trouver roche bu tudd kimberlite boo ko gisee mun nga wax à quatre-vingt-dix-neuf virgule pour cent terrain bi am na jamono. am na am na fa des na ba tey am na beneen rose bu ñu tuddee lamproite boo ko fa gisee mun nga wax ni jaman am na fi à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent roche bi mujjee mooy comatite ñetti roche yi yépp amul benn bu am au nord du Sénégal te maa ngi leen di invité ngeen dem xool la carte minière au nord du Sénégal kon premier élément scientifique bi moo démentir waxu Moussa Diop du man maa ko wax deuxième élément mooy ni que maître Moussa Diop nee na président Aly Ngouille Ndiaye dafa bind courrier Jean-Claude Mimran Jean-Claude Mimran tontu ko bu ñu yamee ci ñaari courrier yooyu Moussa Diop maître Moussa Diop bi muy def conférence de presse am dafa doon liir ci li mu liir ñun ñëpp dégg nañ ko may laajte ndax administration centrale bi nga xam ni ñoo tëgg li Charles fay jàng tëgg li Messi Cheikh Gueye jàng tëgg li Gadiaga jàng ndax administration centrale boobu dinañ am un caractère rédactionnel aussi vulgaire pour traiter un dossier aussi important muy deuxième élément de fausseté dans le discours de maître Moussa Diop troisième élément et non des moindres mooy bi muy wax date bi muy joxee pour président Macky Sall ñëw convoqué nit ñi à Paris pendant ce temps le président recevait au Sénégal Recep Tayyip Erdogan est-ce que république du Sénégal ak ni muy doxee dinañu recevoir kilifa bu mel ni Erdogan di ko fi bàyyi di dem Paris pour wax leneen muy troisième élément de fausseté yaakaar naa ni sénégalais yi suivre conférence de presse maître Moussa Diop yëpp mun nañ affirmer avec une assurance tranquille qu'il a été induit en erreur et que li mu yore c'est du faux c'est comme un billet de 700 francs CFA merci beaucoup. de 700 maa ngi jégalu je pense que je je pense la, la, la, juste rek pour. Euh, pour euh, pour euh, pour quand même lever quelques équivoques. je crois que si. Moussa Diop détient du faux mm -hmm. ou du pas faux mm -hmm. c'est pas à nous de le démêler donc il faut que l'on sache dans cette affaire la raison garder mais nga baal ma dossier est en instruction nga baal ma euh, nga baal ma ñu ngi instruire dossier bi xayma nga baal ma c'est pour juste dire euh, pour préciser qu'il a été très factuel aussi il faut lui reconnaître ça par exemple il donne un fait quand on dit que président Macky Sall bi muy signé mbir mi mi ngi woote pareek yu demee noonu ñi ngi woon Paris alors qu'au même moment à même date mi ngi Dakar ça pose problème effectivement mais c'est comme le communiqué qui dit que monsieur Aly Ngouille Ndiaye n'était pas ministre des mines au moment où Moussa Diop parle alors que vous allez sur internet vous tapez son CV il était effectivement ministre. mais ministre de quoi. incohérence ministre totale de quoi des mines de l'industrie et des mines. de l'industrie oui et des mines. exactement et des mines en charge donc de cette affaire là donc là, aussi on pourrait considérer que c'est une contradiction totale gis nga. euh, il faut que l'on sache nous tous raison garder je dis que le fil conducteur nous mmh. au sein de ma famille politique mhm. Mhm. c'est celle de se dire que la, la République elle a ses institutions que la République jusqu'à preuve du contraire elle fonctionne mhm. laissons à la République ses prérogatives de démêler le vrai du faux parce que désinformation bi bëri na lu bëri bëri na li ñu mën a àtte mooy justice taxaw nekkat si il y a du faux et des usages facile il suffit d'instruire un cabinet indépendant pour aller vérifier l'authenticité des documents présentés par maître Moussa Diop il y a pas besoin de crier il y a pas besoin de crier urbi orbi et puis sur cette euh, euh, ci cours cours cours de géologie bi mm -hmm. c'est très bien mais il y a d'autres géologues qui disent autre chose le mérite de cette affaire mhm. c'est que nous tous au moins tey aujourd'hui mm -hmm. on est en de réfléchir sur un potentiel du diamant au Sénégal mhm. c'est ce mérite que maître Diop a eu à faire et c'est une alerte pour tout le pays et nous lui en remercions et nous sommes euh, euh, euh, alors li ma bëgg yokk rek. waaw kon nga yokk après nag vraiment gars yi commencé. mën a mën a mos ñoom it ci wax de diamant. Mhm. diamant dafay dund ci li ñuy wax manteau terrestre. manto terrestre moo nekk entre. la discontinuité mhm. de Mohorovičić et la discontinuité de Benno Gutenberg et que profondeur boobu mooy am chaleur comprise entre mille cent ak mille quatre cent degrés pour transformer carbone bi en diamant profondeur yooyu lan mooy am du point de vue géologique pour diamant bi ñëw à la surface mooy volcan mhm. volcan yi ñoo koy génne ñoo koy remonter waaw léegi dama leen di laaj yéen ñi fi toog fan ngeen dégg volcan ancien nouveau wala vieux volcan au nord du Sénégal man li may wax science la làmbatuwuma ko science li mu wax loolu lay wax Ross yi ma leen wax sànq science moo ko wax. est-ce que Ross est wax nañ la. man dagguma la de sur les placers. dama ne dagguma la. je m'excuse nañu dégluwante yow yaa demandé au début. Mhm. que ñu am un débat courtois. Mhm. alors. man je vous invite à beaucoup plus de courtoisie. amende honorable capacité d'écoute dafa baax ci échange damay jàng ci yow nga jàng ci man. alors je disais que ni li may wax yëpp ci science laa ko teg ci ay faits j'invente rien dégg ngeen maître Moussa Diop di lire mais la nature rédactionnelle de ces correspondances épistolaires dafa mel ni benn booy bu taxaw ci mbedd mi texte moromam morom ji ne ko waaw mais garaawul mais toi même tu sais TMTC. mais attends suñu administration doxeewul noonu administration bi tëgg li tàggat doomu aadama yi ba tey ñuy mun a toog ci télé ci rajo di dem au niveau des institutions internationales di fa représenter dignement le Sénégal administration boobu doxeewul noonu nañu génne administration boobu ci caaxaan ak ci politique loolu laa bëggoon nag jërëjëf Cheikh su euh, dee tu as un avis sur ce qui se passe. sur même su dee ça ne concerne pas. sa bord politique. sawaruma ci woon wax. à part mais comme la ci boole yaa ngi fi parce que j'ai enseigné les. <laughs> on a bien envie de d'entendre ce que tu en penses. ans j'ai fait la géologie. j'ai été charmé par le discours de Cheikh. Mhm. Ah et mieux encore je suis né à Saint-Louis. Mhm. à Saint-Louis c'est la région du fleuve. ça veut dire beaucoup de choses. à Saint-Louis quand tu creuses à 100 mètres déjà il y a de l'eau C'est pourquoi on l'appelait la région du fleuve. Partout il y a l'eau. Donc scientifiquement, géologiquement, on peut encore théoriser wax ci lu mais par rapport question bi nu mu posé. ak fi ma taxawee. ce que je dénonce mooy Sénégal ak li mu def ci marche en matière de démocratie war nañu arrêter di tëj nit ci ay délits d'opinion. je peux avoir cette posture-là tel que soit maître Moussa Diop ou maître keneen ou keneen lu mënti même lu wax di rëy rëy. surtout nga baal monsieur le maire est-ce qu'on est dans l'opinion là. oui xam nga ak contexte politique parce que c'est ça aussi un leader. Hmm. contexte politique bi ñu nekk c'est tellement chargé. daañu ci ñëw certainement ci débat bi. oui quand tu vois épidémie candidature yi am à la candidature. Hmm. mais war nañu. amené à réfléchir lan mooy cause lan moo tax de telle sorte que kenn ku ci nekk il faut connaître lan lay wax am na ñoo xam ni wax lu ñu mën a et cetera c'est vrai wax ju ëpp ëpp na il faut aussi mettre les pendules à l'heure mais comme l'a dit mon ami fii c'est pas une cour nous ne sommes pas au tribunal mais ce que je peux dire mooy tout en dénonçant le fait d'arrêter et de condamner des gens pour des délits d'opinion demander aussi à avoir plus de hauteur et de responsabilité surtout ñi nga xam ne dañu jàpp politique pour def politique tout à l'heure avant l'émission j'échangeais avec Charles pour dire que pour man réew pour mu génn fii ça va être très compliqué parce que léegi ay attaques de personnes la ay invectives ay wax lu dëgg et cetera c'est pas ça la politique elle est noble la politique aussi c'est un esprit scientifique c'est la vérité aussi donc il faut ñu dellu soit foofu et maa ngi interpeller tous les hommes politiques véritablement à ce ñu range si loolu dinaa dégg benn euh, imam que je salue au passage Pape Samba war ngeen xam du jëppal bu jëppal ci yeetaan mu naan ku siiw tax taal sa kër bàyyi bu tàkkee nga fanaan biti mhm. c'est-à-dire Sénégal léegi wax ju rëy wax wax ju ëpp moom mooy yéem nit ñi ba ñu accroché mais il faut faire attention c'est pas parce que dañ nekk contexte politique candidature à la candidate que lu waayu neex wax lu waayu neex def mais en tant que homme politique et surtout appartenant de l'opposition je manifeste toute ma solidarité et mon soutien à Maître Moussa même si dans le passé il y a eu des bisbilles entre lui et notre coalition mais c'est ça aussi l'élégance politique c'est savoir se surdépasser et faire preuve de dépassement et surtout de tolérance nañu ko comprendre et puis peut-être élargir ko quoi yow ñu ñu bàyyi ko ngay abla une précision d'une minute dans la lettre cette fameuse lettre bi muy wax Aly Ngouille Ndiaye n'était pas ministre de l'industrie et des mines moom nee na Aly Ngouille était ministre de l'énergie et des mines oh, Aly Ngouille était ministre de l'industrie et des mines alors c'est pour ça Charles que j'ai voulu préciser ban euh, ministère la occupé woon à l'époque c'est important occupé à l'époque yow mënoo ñoo ko définir nga ciy juum quand même y a problème c'est vrai à l'époque y a problème donc hmm. c'est parce que le ministère a dû changer de nom oh. mais dans le contenu hmm. ce dossier-là mmh. était géré par le ministère dont Aly dama ne. c'est tout un ministère qui. il faut se automatiquement. ci lettre yi muy envoyé dañ ko ciy gis. exactement nañuy waxante en fait suñu administration bi honnêtement bu ñu ko jàppee comme euh, nous ne sommes pas dans une république bananière. Mm-hmm. nous sommes au Sénégal. et nous avons une administration très pertinente et très efficace. Mm-hmm. allez euh, euh, Bounama Sall. waaw man damay revenir rek ci li ma tàmbalee woon léegi. ci humilité boobu pour wane que ne Sénégal bi aussi dafa am ñeneen ñun ko bokkal. Hmm. ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen secteur ci ñeneen activité te ku nekk sa contribution ci stabilité quiétude développement. ku hmm. nekk yaa ngi ciy bay sa hmm. te am na ñoo xam ne duñ leen dégg. et man euh, attitude bi may am rek mooy attitude bi ma mos a am vis de notre justice. parce que notre justice euh, cette justice là elle est est incarné par des êtres humains qui ne sont pas du tout parfaits, qui ne sont pas parfaits. Et que peut-être que comme disent les gens que la perfection n'est pas de ce monde, mmh. il arrive parfois, soo xoolee facture de décision yi ñuy rendre. Mm. tuuti rek nga ci gis nit ñi di ci kër di ko yuuxu. Mm. et on cesse. te li ñu yuuxu sax sa ça concerne toujours un homme politique. un homme politique. mais le citoyen lambda doo dégg. pour vous dire que ñun aussi. comme ni ko monsieur le maire waxee nous les hommes politiques mmh. nous ne sommes pas les seuls Sénégalais qui vivons dans ce pays nous le partageons avec d'autres personnes mmh. par conséquent nous devons faire preuve d'humilité dans notre manière de faire moi je suis socialiste j'ai été très tôt adopté porté par Ousmane Tanor Dieng mhm. et dans les échanges que yu ñu doon am dafa am benn formule bu ma waxoon mhm. mu ne ma bu naa ma on gagne à terre ce qu'on n'est pas obligé de dire hmm. on gagne à terre. à terre ce qu'on n'est pas obligé de dire le silence. mais loo xam ne boo ko boo mën nga koo noppi noppi ko moo gën. Hmm. maintenant c'est des Sénégalais comme vous et moi qui avons en commun ressources yi fi nekk. Hmm. si quelqu'un constate constate en tant que de manière citoyenne. Hmm. que ne am na benn bien commun bu ñu bokk. am na lu mu ci yaakaar. parce que j'ai eu la chance aussi suivre vidéo bi mhm. moom mi ngi wax boppam ne avocat la mhm. xam na yoon mhm. bëgg na réew mi c'est un citoyen joxe ne sax asaka bakkanam réew mi jaral na ko loolu la wax ñu teg ci mu ne moom xam na droit li muy wax am na fu mu ko teg yëkkati ay mbir teg ko ci nit mu doon quelqu'un qui a une famille qui des enfants entre autres di am lu muy incarné parce que Aly Ngouille je le connais c'est mon grand frère nous partageons le Jolof xam naa ay jikko ci moom xam naa ay valeur ci moom hmm. mais nit aussi dafa amul man lu dul suma dignité ak suma sag suma dignité ak suma sag moo ma ko gën su ko kii waxee ne am na lii wax ko teg ko ci ba ci lo ci ci ci mbaggu diw kooku moom it wóolu république bindu dem fa fi ko yoon joxe teg ko je pense que ñun pour couper court à tout ça mhm. nañu toog seetaan justice buñ leen woowee kii bu indee lu jar lu tax ñu loolu ñu ne lii la kii tamit mi wóolu justice ba ne dañ koo tooñ dem ci justice boobu teg fa loxo mhm. wax ko fa mhm. je pense que ne y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe aujourd'hui parce que quelqu'un s'est senti diffamé peut-être son image ñu laal ko ternir ko entre autres mu yóbbu ko fam rek loolu mooy république nous sommes dans une république que chacun reste à sa place hmm. et que ku ñu war a def nga jox ko ensuite justice lu mu joxe il y a des des des spécialistes en la matière hmm. parce que man tamit man je suis un adepte du respect de la spécialisation hmm. parce que li ñu wax léegi jëmale ko ci ci roche yooyu yëpp c'est de la science mais par déformation professionnelle moi je m'en limite aux faits et de, de voir ce que ces faits de moi. Charles, que faut-il penser de, de cet art Jërëjëf Der, mais moom nos, nos invités, nos amis, nos chers chroniqueurs sénégalais yu ñuy seetaan. Jàll aussi une sœur boo xamante ne muy euh, docteur Abi pay nga xam ne j'ai eu à travailler avec elle pendant des années euh, qui a perdu euh, son fils euh, Ousmane André Ndiaye nga xamante ne lañ koy rob maa ngi koy jaar bu baax a baax ak mboolem mbokkam yëpp la famille Ndiaye ak pay te nga xamante ne notre chère sœur Abi il y a trois semaines rek yàlla jàppale bu baax a baax parce que il y a trois semaines rek maman bi moo demoon perte trois semaines après son fils dafa doon loo xamante ne c'est c'est pas évident mais et la fois en Dieu te loolu moom yàlla moom mun na lu bali mun na ko kii lu bëri soutenir bu baax a baax ñu ñaan ko xale bi daal yàlla xaar ko si àdduna lu gën a kawe di nuyoo suma xarit euh, Christian Diompi ki a appelé depuis l'étranger et qui regarde Jakaarlo qui est toujours bon me dit vraiment c'est formidable cette émission et félicitations Bouba Ndour pour notre beau plateau là que tu as que tu as changé. C'est un beau cadeau de Noël et puis le sapin qui est derrière. qui est derrière, ouais. Qui est derrière. ah oui oui ah moom man rek moomuma ko. mais sa bos la. ah sama bos la. ñoom werante naan ban côté lañ ko def ma ne leen Charles Faye. non xam naa gajaga xam naa. xam nga gajaga xam naa ne bu subaa ñi jaay sapin yi lay dem jëndi benn teg. bu weex lay dem uti xam nga ko. le sapin du président. voilà le sapin du président mais c'est piégé de sapin bi cadeau ci lañ koy dugal kon yaa ñuy dugalal fee suñuy cadeau. <laughs> après continuer non c'est trop facile. ça veut dire ici je suis le minoritaire c'est moi qui gagne à tous les coups du dëgg carrément waaw vraiment di et puis tout toute la diaspora qui nous regarde à des heures parfois euh, très tardives cette affaire man j'avoue que il y a plusieurs choses qui me dérangent ci biir quand je dis quand boo comme l'a dit monsieur le maire boo xoolee chef euh, d'accusation yi am na si deux yoo xamante ne mun nañ si taxaw ce qui reste pour aller en prison pour ça pour moi ça me pose un problème maintenant bien entendu cette affaire de faux et usage de faux <coughs> loolu dafa doon lu lu xaw a doy hmm. loolu moo si xaw a doy parce que dañ nekk si jamono boo xamante ne der faaw que képp kuy politique waxuma politique muy leader d'opinion muy këpp kuy politique euh, société civile war nañ def attention si lu ñuy wax parce que c'est une période très très très très complexe euh, réew bi fu mu tëddee nii ça devient très euh, il y a une sorte de traumatisme qui est là mais en même temps mu am benn pesanteur boo xamante ne mu ngi si kaw réew bi à telle sorte que à mon sens que ni ni bu ñuy wax war nañu entourer de toutes les garanties qui plus est quand on aspire à diriger un pays on commence à avoir autour de soi toutes les compétences requises pour pouvoir faire un certain nombre de choses être avocat seulement ne juste ne suffit pas parce que justement pour diriger un pays dafa am lu mu laaj aussi ku wax euh, ku wax diamant ah dafa laaj ay ay spécialistes. Euh, pour la première fois qu'on parle de diamant au Sénégal ça ça remonte avant les indépendances. Mhm. le Sénégal a une tradition une euh, une tradition et une histoire euh, comment dire de l'exploitation minière qui date depuis des siècles. ñu dañ koy fàttali depuis nos forgerons depuis le fer et tout ça ba muy ñëw si or n'oublions pas que Sénégal faisait partie de l'empire mandé qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a qui quitté en 1300 et quelques pour former le Jolof et que donc ku wax empire mandé dafay wax or. Et donc, du Sénégal au Ghana, au Burkina et tout ça, c'était l'Empire mandé. Et justement, ce Sénégal, en terme de, de minier, quand même, yàlla may ñu baax baax jamaa nag daawoon nañ ko wax am na ay kii mais mu suñu dem lu gën a sori que ay waxtaan. Moi, dans cette affaire, ce qui me fait, ce qui me met mal à l'aise, c'est parce que euh, l'homme politique aurait pu attendre, par exemple, d'être candidat à la présidentielle am loo xamante ne da nga koy wax nga am benn immunité qui permet de sortir à ce moment-là un certain nombre de choses et l'immunité faisant euh, si je ne me trompe pas euh, mun nga toog di wax loo xamante ne moom doo si doo kii mais si moment bi euh, qu'on en arrive à ce qu'on passe de faux et usage de faux euh, ça ça pose un, un sérieux problème et ce n'est pas la première fois c'est-à-dire que maintenant il y a un vrai problème dans notre pays quoi il y a bu fàtte que fii il un décret si je ne me trompe dañu si je ne me trompe il y a un décret qui était faux xaw ma est-ce que yaa ngi ñu ngi koy fàttaliku mais il a un décret bu gën a ñu ne dafa faux donc bu ñu demee ba suñuy këyit yu gën sensible si réew bi euh, ñu mel na Wikileaks wala xaw ma euh, Mediapart muy génn mais ñuy ne c'est du faux et usage de faux ça ça veut dire que plus personne n'est à l'abri et ça aussi il va falloir que dans cette affaire là qu'on aille le plus loin possible parce que il faut pas que suñu xel def ñaar Et comme on l'a dit, comme c'est quand même pendant devant la justice et qu'il faut aller jusqu'au bout, il va falloir qu'on sorte. Il dit qu'il a des preuves qu'on lui donne. Bu fekkante ne am na ay preuves. Encore que, je le dis souvent, xam nga dans fi mos a teg benn kayit ma der rien ne prouve que c'est que le papier est authentique. Rien ne prouve. Et dans ce pays d'aujourd'hui, moi je pense comme l'a dit notre cher euh, député dañ toll si situation boo xamante ne booy wax. Euh, avoir toutes les garanties ça me semble très très très très difficile dans ce pays là parce que loo teg ñu teg loo fi wax ñu teggi ko est-ce que si kaw dëgg la est-ce que si kaw truc nous sommes arrivés à un moment où l'émotion est arrivée à un tel niveau dans notre société où la raison est en train de régresser au profit de euh, d'une émotion très très très très forte charriée à tous les niveaux et à tout je veux dire dans toutes les couches on ne parle plus Il n'y a que l'émotion qui s'exprime et rien ne se construit qu'avec l'émotion. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il faut l'affect, euh, l'émotion, l'affect, la raison. C'est ça qui constitue les deux mamelles de l'intelligence, euh, comment dire, émotionnelle. Mais moi, je suis très surpris de voir que dans tout ce que nous faisons, c'est l'émotion. Parce que si la raison est invitée, je pense qu'on peut éviter ben, un certain nombre de choses. Donner rendez-vous pour ceux qui iront à la présidentielle. mais buñ ko comme comme l'a dit le maire il a raison xam nga deux cent et quelques candidats ça met parfois des pressions inutiles et j'espère vraiment pour mm. Moussa pour maître Moussa Diop aller en prison pour ça cela me semble poser un problème mais quand il y faux et usage de faux euh, loolu dafay dafay difficile donc euh, il peut aussi avoir été avoir été trompé c'est possible comme il peut avoir des documents qu'il dit avoir par devers lui et donc c'est à la justice d'éclairer tout ça. mayal gars yi ñëw kii après naa ñëwaat ci yow yow notel yi nga bëgg peut-être euh, relever rek malal bismillah. yes jaajëf. Euh, borom mariage bi. mariage bi neexoon na rek. macha allah waaw mais Der. balaa may dugg ci sujet bi. en fait dañ ma dañ ma interpeller parce que si vous regardez bien mon style d'habillement dans l'émission en fait je ne suis pas régulier ci wàllu régulier ci wàllu rafet yére quoi <laughs> je ne sais pas si je me fais comprendre mhm. régulier wu ma ci ko hmm. mais j'ai posé parce que tailleur yi dañ may jox mais bu ma ñëwee bu ma ñëwaatee duñ ma joxaat et j'ai posé la question ñu ne ma yow da ngay yàq yére ni nga koy solee est-ce que c'est vrai. ni nga koy solee non la preuve. Ouais, est-ce que non regarde comment le tailleur là qui a fait son habit. oui oui mais est-ce que c'est vrai grand. mais xoolal bi. non non mais tey da nga nice. non kii yaa yaa génne yére bi sama. Ah. merci beaucoup. <laughs> non grand bi nag sama aw sama aw koñ. maanaam bi bi bi yére bu bees non bu bees bu yàgg la. ah ok oui parce que parce que moi je suis pas aussi dans ça hein, dans le way. Euh, moi je ne veux pas être conforme quoi. waaw ah, mais mais Mara. man li ngay wax ni li si gënoon neex nag ñu wax la ko moo dàq.

fii Aziz Fall. nee na mu ngi leen di nuyu. waaw Aziz Fall Sénélec il présente son livre demain Sarah et les vagues de l'Atlantique à à Saint-Louis. et il a été promu je crois. waaw il a été promu nee na mu ngi leen di nee na ngeen. Aziz waaye Aziz waaye jàkkaarloo teel. jantal grand la. yaa ngi wax présentation. Ziz Danan. suba aussi Moussa Taye day day génne. Moussa Taye aussi demain son. et il y a Bougane aussi. il y a Bougane aussi son son. il y a Bougane Tekki yeah. mooy son congrès. Yeah. et son et un livre aussi. et son livre avec un livre. qui invite non le congrès du PS je fais allusion. Ah. Au congrès de Bougane, j'ai je parlais du livre, quoi, de Bougane. Maintenant, le père, je ne sais pas qui écrit là-bas. Ah, depuis Senghor, il n'y a plus personne. ah depuis Senghor, on n'a rien lu. grand bi grand justement Senghor li mu fi bàyyi ba léegi mën sama aaw koñam la dugg. mais la deuxième fois. <laughs> non dugal si biir affaire bi di tout. non non non sa fait deux fois nga koy wax. non mais attends mais toi le grand là il mais il fait deux. de l'autre mais il fait deux bu ma doon réalisateur lu film koy def acteur. ah je suis d'accord. mais je suis d'accord c'est vrai. c'est vrai ndeysaan Alassane Samba Diop. oui oui on est tous de Kanel ah. oui oui oui c'est vrai. la même la même bouille comme tu dis on était étudiants ensemble à la fac entre quatre vingt quinze et deux mille. yes waaw. où j'étais membre de l'assemblée de l'université. Oui. et au conseil d'administration du COUD. avec les Aziz Diop les Ali Mané et non, tout Aziz, ça. Non, Ali, voilà non, très bien maa nekkoon sa dirigeant quoi fac. dëgg la waaw. en quelle année. Yes, I, bon, moi c'est bien après euh, 97 là. 97 nga ñëw ñun on était entre 95 et 2000. yeah jaajëf waay naka waar na. sant alhamdulilah waaw der. man pour man déjà je salue Alioune Sané que je viens de voir euh, à 16h moom ak nit doof ak euh, Sœur euh, au passage maa ngi leen di nuyu di wax ni ci mois de décembre bi c'est une c'est un moment de prière pour les détenus pourquoi parce que c'est une période de grâce. moment bi ku ci nag mu ngi ñaan ñu gracier la donc mu ngi ñaan aussi euh, que gars yi ñu bàyyi leen ñu dellu seen gàlle dellu seen njaboot c'est fondamentalement important restriction yi ëpp na tëb der euh, man dama jàpp ni je vais pas m'arrêter sur Moussa Diop wala et cetera et pour man li xew c'est de la désinformation te bu ñu tollee ci période bi la désinformation, c'est véritablement de faux récits <coughs> politiques qui visent à discréditer des candidats ou des figures importantes. awma benn jugement bu may def ci man Moussa Diop hmm. mais dama jàpp ni li mu wax ci ñoom Aly Ngouille yi ñeneen aussi ñu ngi fi di wax des choses pareilles c'est-à-dire le pouvoir le di on di de Sonko que c'est un terroriste on di on di que Amadou Ba c'est un on di également que Bouba Ndour dafa dàq diw parce que effectivement il s'est elle s'est sur et cetera dafay jàppale Sonko il y a énormément de choses que les gens disent et qui pas vraies dama jàpp ni nit booy wax sur la place publique fondement bi jiitu mooy da ngay wax dëgg te yàlla tax parce que dëgg soo ko waxul te yàlla tax da ngay wax fen te nit kuy wax fen li mu ciy jublu mooy gëmloo nit ñi lu dul dëgg de façon à fair faire à faire agir pour man kilifa warul toll fu muy waxee loo xamante ne mënu ko prouver parce que ah moi on ne peut pas et puis je ne suis pas d'accord quand mon ami dit que c'est de l'alerte au moins c'est de l'alerte l'alerte on la fonde sur la vérité on ne la fonde pas sur des suppositions et des supputations alerte booy alerte da ngay alerte sur la vérité boo ko deful tu en fait yaa ngi dox ci populisme boo doxee ci populisme finalement tu perds les gens et tu radicalises les gens mun nañu d'accord ni effectivement c'est une question qui globalement nous amène à réfléchir sur nos ressources ex extractives comment elles sont gérées et yan zone la nekk et comment lan mooy état ou zone yooyu parce que boo jëlee par exemple la zone la zone de Matam nga dem dans le Fouta le phosphate est exploité à tout va on ne voit pas les gisuñu les retombées sur les populations boo demee Kédougou di nga fa gis or on ne voit pas les retombées sur la population quand les populations se lèvent pour dire non on n'est pas d'accord on nous prend nos terres on ne peut plus cultiver etc etc et en termes même d'engagement de responsabilité sociétale etc li ñuy wax ni dinañ ko fa def duñ ko duñ ko fa def à mon avis dañu toll période bi nga xamante ne il faut aussi il faut qu'on habitue parce que nos citoyens, on les perd dans le mensonge. Et un mensonge, comme le dit Souma Bernegrand, un mensonge entraîne une série de mensonges. On n'a pas le droit, quand on est un homme d'État, ou bien quand on aspire à diriger ce pays ou à prendre la parole sur l'espace public, à dire, des, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Taï, des gens sont attaqués à tout va. Il y a des jugements qui sont portés sur Charles, sur moi, sur Gadiaga, sur Bouba, sur Kenen, Kenen, parce que quand l'opi quand li nit ki di wax arrangé wala tu retournes ça et tu après finalement tu discrédites les gens pour man en premier les hommes politiques doivent doivent être des modèles être un modèle c'est d'abord dire la vérité avoir un rapport sincère avec la vérité parce que la vérité kan moo ko moom kenn moomu ko quand les gens viennent viennent tout le temps dire des choses dire des choses yoo xamante ne finalement dafay jaxase moi je suis pas parfaitement d'accord quand on est un avocat on doit être prudent quand on est un quand on est un homme prudent et à mon avis jarul également tëj kaso jarul tëj kaso c'est une simple chose qu'on pourrait mun nañ ko arranger waxtaan bàyyi ko yes mu dellu gàlleem booba waaw Der c'est c'est c'est vrai que c'est c'est c'est assez compliqué xam nga bu ñu waxee quand même Sénégal gaz mi ngi fii feeñ ak pétrole ñu jékki-jékki ne la jamaa pour man pour man man foofu lay foofu lay taxaw parce que jamaa la wax donc man bu ma déggee dama naa est-ce vraiment am na jamaa parce que bu gaz bi ñëwee pétrole bi ñëw jamaa bokk ci loolu beneen affaire la donc c'est pas du ma arrêté wu rek si benn accusation benn nit quoi c'est en fait li muy wax moom laa bëgg a xam ndax nekk na wala nekkul loolu c'est important parce que je pense que fu ñu exploité jamaa munoo ko def d'une façon clandestine de voilà. loolu tam yéen ñi def euh, géologie war ngeen ñu mën a wax. exploité jama dañ koy làkk ci benn. clandestinement c'est pas waaw xam nga donc est-ce que est-ce que exactement ci biir Sénégal gi am na benn zone comme ñëpp dañuy seetaan jàkkaarloo boo xam ne gars yi soupçonné nañ que ñu ngi fay exploité jama man de gisuma ci àddina bi fu ñuy exploité jama te population yëguñu ko voilà. non je suis d'accord avec toi. parce ah, que donc donc donc loolu dafa am solo. carrément c'est-à-dire que on ne parle pas de de de benn fait bu ndaw on parle de de quand même jamaa la ñu wax de pays yi am jamaa saa yi dañuy bëri xaalis donc la première chose qui interpelle même beneen homme politique wala keneen wala le citoyen mooy que man la question que je me pose mooy est-ce que Sénégal am na jamaa te loolu question boobu su ma ko posé rek des fois yu mel nii bu amee li njëkk am solo mooy li intéressé le Sénégalais lambda mooy que seet ndax Sénégal am na jamaa wala ba pare. parce que loolu moo jiitu accusation crypto personnelle yi nga am ne dafay am parce que loolu entre nit ak nit la. et après so bi la wax on s'en fout la. amul benn njëriñ c'est-à-dire que c'est pas parce que man barreau de Paris laa nekk rek maa gën a chevronné wala dara il faut ñu ñu ñu démystifier il faut déconstruire voilà yooyu taxawul maintenant li ma bëgg wax mooy que avocat bi mu nekk ah mooy moment bi période bi mu génn def nii est-ce que mesuré na un peu li ko si doon xaar pour man c'est important est-ce que aussi avocat bi mu nekk amul jumtukaay yoo xam ne mën na moom si xelam authentifier document quand tu donnes un document à un man tey jii nii suñ ma bindoon benn affaire sama avocat laa ko jox mu xool authentifier document ci quelqu'un qui a quand même pratiqué le pouvoir il faut c'est important mi ngi woon ci biir nguur gi pendant à la quatre-vingt pour cent wu bi fi Macky président Macky Sall nekkee ba léegi loolu moom moo fi nekk donc après mu dem donc mën na mën authentifier affaire bi beneen bi mooy que est-ce que maître Moussa Diop en tant que politique suñu waxee suñu ak xulaay taala yaakaaroon nañ ni que bokk na si ñi nga xam ne mën na am parrainage bu mag c'est important c'est donc c'est des questions xam ne ñu abus ci ci ci candidats yi dañu bëri mais est-ce que bu ñu waxee suñu ak xulaay taala ñun ñii ñëpp yaakaar nañ ni maître Moussa Diop da doon def kii pour sama ak xulaay taala moi man xalaatoon naan du ko mun te wóor na ma ni su ko gars yi waxoon ñu si gën a bëri xalaat nañ ko parce que aussi dañuy jël température bien ah pour xam mm. parce que parti bi mu tudd alternance générationnelle ah AG ah. ah, jot na ah voilà AG ah, jot na te gisuñu benn xam nga aussi Sénégal c'est un petit village ah ba nga xam ne dara bu bu bu bu jàppee da nga koy sentir da ngay sentir température donc est-ce que amoon na moom chance wu nekk un vrai candidat mais Bouba ma laaj la foofu loo bëgg wax kon daf ko tey pour. non non non mais je me pose des questions dama ne dama ne dama ne dama parce que benn moment aussi. Mhm. ci fin wu euh, ñuy dem ci parrainage bi mu génn les gens ils posent des actes il y a, il y a certaines personnes qui se positionnent par rapport am ay stratégie parce que pour man peut-être que il voulaient taper fort maintenant prendre le risque de de brandir des documents comme avocat bu mel ni si si contexte bu mel nii ah mu war a jàng ci ñi nga xam ne tey jii nii ñu si gën a bëri ñu ngi am ay ay problèmes de justice parce que ils avaient émi yenn affaires yi muy Ousmane Sonko muy keneen a keneen. d'ailleurs tey jii loolu rek la ñuy waxtaanee voilà loolu la ñuy waxtaanee donc donc donc pour man pour man loolu yëpp en euh, homme averti peut-être que stratégiquement am na lu mu doon jéem. peut-être que aussi il il était dans la provocation peut-être que lii la bëgg. Mm-hmm. peut-être que aussi lii la bëggoon ah. il se ah. dit ok je vais je vais parce que voilà parce que pour man pour man wóor na ma ni Maître Moussa Diop bi muy wax loolu xam na ni. li muy wax nii bu paree dañ koy convoqué c'est un avocat du benn Bouba Ndour buy jékki di wax ni avocat la xam na avocat yi xam nañ da nga xam ne bu ñu ko waxee surtout ci fi réew mi toll xam nañ dañ leen di convoqué il le savait donc maintenant boo jëlee par exemple ku mel ni Jean-Claude Mimran qui est quand même un privé soo ko dugalee si benn affaire rek après dafa affaire day day nekk ci leneen on peut tous ñun ñëpp ku nekk mën nga am jugement ci benn nit dara mais soo ci dugalee benn privé indi ko rek affaire bi mën na mën na indi nekk si beneen ki beneen bi mooy que Aly Ngouille Ndiaye est aussi candidat peut-être bu damay imaginer bu met Moussa Diop defoon kii bu mel ni kenn waxul dara kenn réagirul man li may njëkk a wax mooy que état bi lu ñuy nëbb pourquoi ñu wax waxi jamaa te waxuñu dara su boobaa sa mais même Aly Ngouille Ndiaye dans une mauvaise posture parce que il est candidat et crédibilité am gars yi dañu naan ah parce que euh, pourquoi ay waxuñu ci donc pour man au la de chef d'accusation yu ñu def aussi dañu nekk dëkk yoo xam ne dañu am assemblée nationale dañu am ay député dañu am ay nit yoo xam ne à chaque fois coow génn li leen war a intéresser mooy que lii dëgg la wala du dëgg ñu ubbi enquête commencé def ay recherche nos journalistes aussi d'investigation on dans un pays boo xam ne aussi nit ñi dañuy toog fii ñu naan la ay Wikileaks moo génn lii diw moo génn lii il faut que par exemple loolu bu amee bu ñu ko waxee mais imaginez dem vers la zone la et faire def ay investigation pendant un mois wala deux mois pour seet peut-être que foofu la information di génne ah mais du toog danaa diw wax na parce que pour man li dépassé na accusation kese dafa c'est beaucoup plus profond ko te euh, état bi fi mu toll nii soo leen waxee benn affaire boo xam ne arrangé wu leen te ñu am juridiquement fu ñu ko mën a wekk dañ lay kepp ah. te su boobaa aussi eh, doo si mun dara maintenant munoo def accusation yëpp ñoo ne way léegi na justice wax parce que foofu laa d'accord ak sama sama copain c'est-à-dire pour man je m'attendais à plus d'informations xam nga revendiquer benn affaire taxaw posture ah parce que dire quelque chose avec un avocat qui brandit des après bu ñu waxtaanee aussi campeel si sa position bu dee li ngay wax dëgg la ma am si sax yenn argument que ñii am na fu ñu dëgër fu téye fu dëgër xam nga sinon rek après day day nekk benn benn ça devient une affaire politico judiciaire mu jeex. parce que lui que lui euh, ci pro ci de ci bi muy wax dafa mel ne en fait. il ne défend pas. mais Maître Moussa tu ne prends pas tes responsabilités. c'est-à-dire tu n'es même pas sûr de ce qu'il a dit. Ah, parce que parce que. alors que quand on est avec un leader politique. on doit. Non, oui on doit s'accorder. non mais il y a un leader politique qui a dit quelque chose et qui se trouve être. comment dire placé sous mandat de dépôt c'est clair que tout le reste affaire bi leer na si ñëpp cest à loo boo bu fekkente ne moom bi am ay preuves il est sous mandat de dépôt ñeneen ñu amul dara nu ñuy def. non je veux dire que aujourd'hui c'est ça c'est c'est c'est ce qui te montre toute la fragilité d'un discours boo xamante ne derrière on ne peut assurer et venir mettre sur place euh, sur la table. mais mais mais Charles Charles. c'est ça que je dis il faut mais mais Charles peut-être benn nit lambda wala benn même benn kii ah leader politique. politique. mais moom laay wax ni avocat la. oui dafa xam yoon xam nga ma la bëgg a xam na li ko ci mën a fekk donc pour man. avocat bi may bi may kii af ah, dama ne kii bu demee ba wax li ba génn affaire bi war na am fenn fu dëgër fu mu ko wee donc ku koy représenté damay bëgg di am ay argument yoo xam dama ne ah oui parce que sénégalais bi tey jii nii lambda bi seetal moom li mu xam ah mais kii li mu wax dëgg la de ah kii de li ñuy boo moytu am na fu ñu jàpp mais soo nekkee naan genre way na gars yi xool affaire mi ngi ci main justice léegi du si décider na dafa mel ni amuloo argument yu valable en tant que représentant pour Tektal parce que waa ji waxul ay commentaires il a sorti des preuves quand même génne technique en tant qu'avocat il faut que quand même xam a une autre mooy moom bi mu koy bi mu nekkee directeur Dakar Dem Dikk il avait cette information probablement pas est-ce qu'il avait waaw lu tax mu xaar ba tey di ko waaw bu dee comme il dit. mais mais mais euh, mais mais mais encore encore une fois. bu ñu dépassé problème mu plainte bi lii bu ñu ko waxee ci réew. que jamaa dafa am ah dañ ñun sénégalais lu ñu intéressé mooy que est-ce que réellement. bu fa ah, bu fi amul it est-ce que ñu koy xool nit ñu loolu moo ñu intéressé. est-ce que dans cette histoire là dara am na ci quoi y a des études allez Badara. waaw Der maa ngi ziyaare di nuyu suñu gan yëpp suma grand cheikh. xam ne bokk nañ nekk ville de Dakar vraiment ñu am yu ñuy jàngee ci moom ci humilité ak li malal di wax artiste la mën na la jàngal sax ci en chantonnant et tout ça waaw ah, di nuyu honorable ah. maam Bounama ah, di nuyu mon frère Cheikh waaw gis nga te te te Cheikh dafa dafa lafañ min na suuf yàgg nga ak sañsee dafa mel ni waaw <laughs> <laughs> mais mais mais mais di ziar di ziar aussi vraiment suñu frère bi nga xam ni moo bokk age jot na. Euh, Abdou Haymoud Daaf Abdou Daaf di ko ziar monsieur Daaf. di wax ni DER Grand car dañu am nag dëj nga may ma rek ma jaale leen suñu yaay bu ñu yar muy suñu yaay Aminta mbay dafa wuy ji suñu borom fekki suñu papa Ndiaga Fall mi ko doon denc Alaaji Maxtaar Fall donc Grand Dakar yëpp am dëj muy suñu yaay bu ñu yar di yaayu Abdou Aziz Fall buur Fall waaw suñu grand yi ñoom grand Pape ak Cheikh Tidiane Fall yëpp vraiment ñu leen di jaale suñu yaay jooju di ñaan yàlla na ko yàlla dugal ci ajjanaam yi gën a kawe fii nag laa yégewaat ni tamit beneen dëj muy sama grand Ali Saleh ñu bokkandoo réew mi mhm. mu doon sama xaritu waajur bu soxnaam gaañoo ñu wax ko fii te jaalewu ma ko dana am lu mu nuru maa ngi koy jaale di jaale parti réew mi yëpp Euh, kooku nga xamante ni mooy soxna alisale Saleh Diop d'ailleurs li may wax man fi may tàmbalee mooy bu ma bi ma déggee coow bi mu bari dama dem seetaani met musaa Moussa bi may seetaan rek man euh, bi may xalaat bi jiitu ci man mooy euh, dama ne àdduna il faut dissocier le principal de l'accessoire àdduna maanaam xam say objectif moo gën a et même prioriser say mbir par exemple supposon rek li muy wax nii yëpp am mu mu doon lu mu téye bu nekkee président de la république ba pare ñuy def reddition des comptes day yomb ci lay jublu direct maanaam moom bu faloo nii woon tey moom day laaj dagan baatu askan wi je parle de il faut dissocier le principal de l'accessoire parce que principalement moom bëgg-bëggam mooy nekk président supposons mu falu woon mu war a def reddition des comptes te mu yor lii loolu lay njëkk jubal te fiñ toll nii moom waxtu falu lañ toll waxtu waxtaan ak askan bi pour falu dama am lu may wax fii ñoo xam ne xam nañ duñu falu de ah falaa jëm nag moo tax ma ni bu dee loolu buuba baax na buuba ni muy def muy leer ci askan bi ah, parce que fi may waxee mooy sa objectif yow bu dee xam nga ni lii la Charles être le président bu fekkee loolu la mais xoolal nooy prioriser say mbir timing bi dafa am baat bu may wax fii di ko répéter lu bari ma ni xaxar bi dafa doy xam-xam bi la ñu soxla mm-hmm. maanaam moment bii même ku yor dénonciation mais falul après nga def la reddition des comptes maanaam ku <laughs> non xam nga li may am na ñoo xam ne non Badara ñi bëgg a doon président lay faral mais Badara moom laa lay wax nii falu xam nga te ku wéet xam sa bopp xam nga tam nan waxante dëgg dëggantaan boo bàyyi ñu ngay wax am na ñoo xam ne ils savent que non xam nañu que ni du ñu am parrainage. dafa am falu am farlu. waaw léegi nag ñaar non falu non falu am na ñoo xam ne xam nañ ni du ñu du ñu jàll. waaw léegi Cheikh ma boole ko farlul ci falu. <laughs> léegi maanaam en tout cas li bu bëri wax moom am na ñoo xam ni mooy li toogoon fii ni bëri na ñoo xam ni deux cent cinquante demoon jëli fiche. Hmm. trente presque moo déposé caution. day gën di wàññeeku rek ci 30 ñu bëri xam nga dem xam nga di jéem a yanu loo àttanul moom mm. xamoon nañ ni du sori loolu ci ñu bari la <coughs> mais damay ñëw rek sama logique ba tey borom xel yaa ngi may suivre maanaam bu dee falu boo faloo après nga def rédiger ko moment bi maanaam liñ doon boole yëpp nañ jàpp ni boole nañ ko leneen li mooy boo excès comme da ngay am lépp ku xalaat ni da nga falu faluwul ba pare après nga def rédition day ko bi ma dégloo nag maître Moussa Diop très sincèrement dama ni mais c'est c'est léger quoi wax dëgg yàlla bu fekkee ñaari nante nii yuy jaay dóob <laughs> eh, comprendre mais xanaa danañ jël dóob bi sax <laughs> danañ jël dóob bi tudde ko neneen ah, non dañuy waxtaan dëgg te yàlla tax dóob noonu comprendre dóob mooy lan noonu comprendre dop ñu ni woon léegi xoolal léegi léegi léegi saa neex sax saa neex sax saa neex sax ba muy jaay dóob Grithiaal la ko tuddee wax dëgg yàlla non attends léegi nag ñaari borom xam-xam yu mag di dile ñoom ñuy bindante nii muy jaar ci assistant yi jaar fépp mu ni ko Mimran yow man dañ may waaj a jële fi ma ne damay waaj a dem gaawal loo soxla wax ma ma defal la ko mu bind ko signé ko ak ministère bi jox ko Mimran Mimran tamit naan naan ko e. yow Aly Ngouille boo boo jàddee Suisse rek jaaral ci man quoi Mimran tamit bind ko joxe ko waaw mais vraiment quand même xanaa nag mais attends Mimran ak Aly Ngouille waaw non non attends xam nga yéen yéen wax qualité profondeur prof nañ dem ci ci li ne ci rédaction bi. Ah, fond bi. fond bi xamu bi am na rédaction administrative au Sénégal am na loo xam ni. Ah. nous avon des secrétaires généraux ay SG yoo xam ne mais attends ministres yi sax dañuy sonn ndax SG yooyu. nous avons des gens des ay énarques ak ñeneen. yoo xam ne ñu ngi ci biir administration duñ fa jógee. du ñu nangu sax faute wala yenn yi mm. donc dafa am qualité rédaction administrative mais bu loolu jàllee dama ni loolu lépp nañ ko teggi mais dañuy dilee man ak malal mm. mais xanaa dinañ jël ngeen di dil do waaw ñuy dile dara rek mais dinaa jël <laughs> li ñuy dil dinaa jël li ñuy dile ma codé ko oui kii <laughs> comprendre mais attends mais du xanaa du duma ma ko bind ni ko malal damay quitter lépp loo bëgg. te moom moom Aliou Ngouye moom mooy xam sax même remaniement bii ñëw xam na ko bien avant. ni ko damay dem lépp loo bëgg rek wax ma ko. ma defal ma ko mais Mimran aussi ñun ñi ñëpp bañ nekkee xale. ak léegi parce que il faut que soit terre à pour nit ñu comprendre. Mimran man dama koy dégg rek man ni ma ni ma bari naay dugg dugg de mais man mosuma gis Mimran. <laughs> mais ah ak ñu bari. mais nag kon nañ <laughs> nangul ni Mimran nit ku discret la. parce que Mimran mii coowal Mimran bañ nekkee xale ñun. ba léegi ñu ngi dégg Mimran man de mosuma gis Mimran man. kon ku discret la waaw kooku discret mooy jël lettre bind ko. naan la jàddeel Suisse. <laughs> ma gis la ma gis la. maanaam ñu mais non vraiment. vraiment si porte si Genève porte de Genève. vraiment xoolal euh, émission bële paase. donc Gadiaga c'est un scénario quoi. non non non non mais bu ma koy déglu man. oui tant que. maanaam vraiment koo xam ne tey dinaa toog xool dimension fu nit ñoo ñu toog. Mm. def nañ loolu. mooy ñun waxuma république waxatuma suñu opérateur économique secteur privé mooy kon ñun moom maanaam ñi ngi mais mais mais fi ñu nekk kenn mënu ko xam loolu moo raw mbëbës daal. mais eh, malal pour man nag nit. du dem ba nekk multimilliardaire te amul tuuti xel nag xaalis xel a koy liggéey. nit du nekk comme Aly Ngouille Ndiaye génne polytechnicien xam li mu xam à parcours bi mu am mais xanaa di nga ko wax nangul ni nag am na tuuti xel. waaye léegi man lii bu ñu ma ne woon mail privé mail privé lañ craqué entre ñaar ñu xamante di wax sax ma ni kon mail privé la ah. mais mais amee looy bind mu jaar ci assistante jaar ci kële ak tampon ak kële mu jaar fu bari nga naan ko sa waay damay waaj a dem wax ma li nga bëgg lépp <laughs> ma defal la ko. mais il y a quelque chose non, il y a quelque chose d'intéressant affaire parce que ça offre une plateforme de communication à Aly Ngouille Ndiaye. waa waa mais tey xam nga par exemple. tey parce que Aly Ngouille Ndiaye. mais mais am na lu domage xam nga dans le débat. am na lu dommage xam nga hmm. tax. tey aussi bu am na lu am solo lu mu wax. Hmm. tudd nañ ci un privé. bu am ay sociétés yu mag yu côté bourse mm. loo leen di tudd ci wàllu corruption da leen di tooñ mm. mooy li Cheikh wax nii je suis pas d'accord nit ñi maanaam boo laalee seen honneur dañ lay porter plainte ah, yéen yéen a ko oyofal mais malal attends honneur dafa yéeme nañ moytu di waxal nit lu ñu maîtriser wul waaw ah, d'accord waxuma ni amul de mais mm. dama ni bu dee maanaam lim ñu liiral parce que il est ci détails yi la dem te am na lu buuba di laaj mais ay indice amoon na fi dégg nañ ni Wasangara Kédougou bi xam est bi non xam nga est bi Wasangara sax la ñu waxoon est bi or bi booy seetloo booy xool marbre bi booy xool euh, euh, je veux yi kii yëpp Kédougou bi ak euh, fële lañ ko am mooy mooy Sénégal oriental mooy est bi parce que foofu la ñu mën a supposer sax yenn yi parce que li mu wax dëgg la ci roche lañu ñu gën a xalaat jamaa maanaam dafa am loo xamante ni de olof danaan ku jaar ci taatu garab guddi xam la muy meññ kooku dafa jaar bëccëg dafa am yoo xamante ni dafa am fuñ koy séentu loo loolu nag mooy vraiment bu mu koy tënk mooy xaxaar bi doy xam-xam bi dañu soxla faites-nous moment bi des, des mu leer ñu gis beneen chose aussi mooy bul bokk ci dara renier li nga bokkoon ma mm. je suis d'accord que li ma <coughs> bokkoon bëgg naa parfaire nangam mm-hmm. dama déglu maître Moussa Diop mu ni 2019 élection yi ñun république bananière la ñu am noonu la ko waxee. parce que dama ko déglu. parce que élection yi Aly ko def te man ak Macky Sall bi ñuy wut dëkk bi 2012 dañ ñu woon un politique du ko du ko def c'est une république bananière 2019 fu met Moussa Diop faro ban coalition la bokkoon. Ah, ak Macky Sall. Mhm. est-ce qu'il l'a dénoncé. Mhm. dénoncé wu ko donc nit du saaga dara ci passé. Mhm. da koy boole ci moom. Mhm. te mu ni man nangam laa bëgg a parfaire. man am naa benn question bu ma ko bëggoon poser. bu rapidement rek voilà comme ça sax mu mën a. xëy na mais mais en fait. tontu ci tënk moom moom ci. moo tax man man il faut ma il faut ma def ay effort. <laughs> ci lan. parce que man du ma suivre. Hmm. gars yi lu ñuy wax. maître Moussa Diop déglu ma ko si. wax ko ci yàlla dégg non ci kaw laa koy wax. léegi man mii liñ may wax. du ma ko déglu asuma ak maître Moussa Moussa Diop. Moussa Diop foofu la moo gën a ñaan la Bouba Ndour lii nga ma ne ah yow ma ne ah way non sérieusement sa billaay wallaay talaay xam nga loolu dafa grave man beneen nit la mais en fait ci ci ci ban contexte la ko waxoon dafa doon def déclaration conférence de presse pour affaire bi kese non dañuy day présenter genre programme am waaw léegi li ma bëgg a xam mhm. doon nañ ci wax bii passé ñuy wax waxi parti politique mais parti politique yi un leader politique qui doit faire une sortie mais tu as ton staff non ah. tu as un chargé de comme tu as des gens yoo xam ne discours bi non des conseillers eh parti la ñu wax tu as un gouvernement un yi toog nga teg affaire bi ci kaw table bi ne lii laa war a wax ku ne wax ci sa xalaat parce que la déclaration de Moussa Diop après day impliquer ça veut dire soit mooy li ma doon wax parti yi amul parti nit moo am créer parti di def lu ko neex wala cest à que mais ñun ñii ah bu Youssou Ndour waree def grand bal le premier ak le six dina neex de mais dinañ toog man ma toog kii toog ñu ne répertoire bi nii la man ma ne non morceau bi nañu def li ñuy répété ñu ne lii ak lii ak lii ba ñu tekk bu ñu ko tàllalee mu dal mais xanaa kañ asumaak koo xam dafa bëgg diriger kii nga ne am après der fecc ko voilà nga am coalition mais nga war a def sortie wax sa programme mais tu as des collaborateurs non mais collaborateurs yi boo génnee document yi teg ko mm. mais ñoom est-ce que am nañu input bu ñu lay wax ne la euh, président je pense que lii c'est pas bon lii c'est pas bon cest dire que man loolu laa bëgg pour ne ko parce que ñiy aspirer diriger suñu dëkk yi aussi seen miniature de gouvernement yooyu ñu am ci seen biir parti mais xanaa amul ay nit yoo xam ne seen xarañ màcc seen moom avocat la am na ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci communication ne lii laay wax ñu ne no je pense que lii soo ko waxee mën na ci def lii nañu changé lii loolu laa bëgg a xam. laaj nga ko ki nga ko war laaj ndax muy directeur école parti bi. voilà donc yow est-ce que bi maître Moussa Diop di préparer affaire bi. Hmm. document affaire bi yow nekkoon nga fa wala nekkoo fa. voilà merci jërëjëf Der donc je vois que euh, les les interpellations fusent. Hmm. on va essayer. waaw tant bien tënk. waaw jëm ci vraiment tontu. ndax am na yeneen ñaari thèmes yu am solo ñuy xaar tamit ah. dañuy commencer ci monsieur Charles Faye c'est vrai que on est dans un pays où parfois beaucoup sax de fois l'émotion remporte sur la raison ça nous empêche de réfléchir et souvent on verse dans des invectives avec dans de l'opprobre te jaru ko ndax politique idée la rek ay idée la rek da ngay teg sa idée ma teg sa ma idée ñu waxtaan te dëkk bi toll nañu foo xam ne ni que même mooy défendre sa idée sax soo moytuwul tu t'opposes parfois après à la violence alors qu'on a connu des moment dans ce pays où les gens pouvaient se parler nga nekk PDS ma nekk PS ñu xoolante waxtaan ku nekk teg nga teg ma teggi tegaat leneen te du ñu saagante du ñu xuloo du ñu xeex nous nous sommes nostalgiques de cette période là donc la débat politique daf ñu intéressé et ici damay damay sax louer mon grand frère qui est gis nga ñii tey ñoo ñu jox l'envie de nous engager politiquement. Mmh.

waaw mais fi ngay jaar c'était une petite parenthèse. non c'était une petite parenthèse. mais je viens dans le sujet. d'accord c'est vrai que ce serait intéressant de nous raconter effectivement l'envers du décor de cette déclaration. comme il l'a dit yéen a nga fa woon. ndax a des questions qui l'ont précédé. est-ce que je peux y aller oui d'accord mais mais mais on s'est réunis. il nous a présenté des preuves que l'on juge être des preuves. d'ailleurs il nous a dit Moussa Diop tu ah,

xam na li ko ci doon fekk mais effectivement mais xam ni la ci fekk est-ce que loolu moo tax nga war a occulter la vérité qui t'est si monsieur Malal. Oui. donc quand on est un homme donc li mu wax c'est donc la vérité. man jàpp naa ne. waaw Moussa Diop mi ma yàgg àndal. waaw du wax loo xam ne du dëgg. non non mon frère. Ah, attends non non vous ne pouvez pas aussi. mais oui des mots à ma place. non j'ai une question Charles dañuy laaj rek da ngay laaj vous avez fait la préparation ensemble. oui. mu présenter leen documents yi. oui ce qu'il considère lui comme étant des preuves. non non c'est que ce qu'il considère. maanaam maanaam aujourd'hui mais c'est ma surestimé. non xam nga tey jii daaf. wax non li nga si c'est information authentique ou pas. aujourd'hui ce ce serait ah. me prêter trop de pouvoir. moo tax nag ma bëgg la laaj. moo tax ma bëgg la laaj. c'est pas à moi. non bu leen que Moussa Diop a présenté. Monsieur Daf j'ai une petite question. Il appartient à la justice. Monsieur Daf d'apprécier en toute souveraineté. Monsieur Daf si les preuves qui lui ont été présentées par Moussa Diop. Monsieur Daf sont authentiques. Monsieur Daf Monsieur Daf Monsieur Daf une question. dafa am une question précise. monsieur Faye. Daf wuyu ko wuyu ko Daf une petite question. mais Daf c'est pas la première fois qu'il a été accusé de faux et usage de faux. <laughs> dama leen koy wax vous vous rappelez en 2020. et je vous rappelle kan moo ko accusé faisons le taxaw ne Macky Sall du fi def troisième mandat d'accord uñu bi mu koy wax il était directeur général de Dakar Dem Dikk 5 millions fin du mois tous les honneurs chauffeur gardien de de, de maison avec tout ce qu'il faut ma il xam na ni bi muy wax ni que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat xam na li ko ci doon fekk mais dafa taxaw mu wax ko Le lendemain, il a été débouté. Qu'est-ce a trouvé de mieux à faire On lui a envoyé des kamikazes pour venir yàq deram ne ko yow signature bi nga xam ne PCA Maham Diallo ndem ci yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moo ko signé woon pour fay la sa indemnité bi ngay de départ faux le usage de faux la kon est parti à la justice nan la demee l'accusateur a perdu platement Et Moussa Diop a été rétabli dans ses droits. Premièrement. Deuxièmement, quand Barthélemy fait une dif diffamation di wax ni que Dakar Dem Dikk amul usufructue sur son terrain mais il y a eu il y a eu un procès il y a eu des des qui ont été instituées l'affaire là fan la mujjee masla avec monsieur Ousmane Sonko qui a intervenu pour jubale leen foofu tamit nous allions gagner ce procès-là, mais on est parti finalement sur des négociations. Donc, cela me fait dire, encore une fois de plus, et je le confirme, Moussa Diop est conscient. wolof xam na bu baax. fi mu teg tànkam. Hmm. d'accord li mu yor. xam na ko wóolu na ko. moo tax mu ne ma avant muy dem que si le procès était purement juridique day génn. Hmm. maintenant s'il y autre chose xamul. Hmm. pour la touche nous nous limitons à ça. mais daal la bonne question rek. maintenant maintenant mais doo ko may mu. mais xam nga. pour mu neex dañuy laajante waxtaan rek directeur d'école parti bi. ngeen di préparer. xam nga dafa am ce qu'il dit lui. ak li mu yaakaar ni moom authentique na est-ce que par exemple en tant que spin docteur ngeen di xalaatal seen leader mu war a wax mu war ko engagé mën a yàq seen élection sur le principal da ngeen a bëgg a falu est-ce que est-ce que nee nga ko ko rek une question yéen ñëpp lan nga am comme preuve que document yi nga yor c'est authentique d'abord beneen chose mooy document yi bu nekkee document yoo xam ni c'est am na am na document administration yoo xam même bu amee génnee ko rek confidentialité confidentialité boobu loolu ngay génnee rek mën na la jural keneen ndax yooyu ay ay yoo leen ko wax la ak lan la leen ci tontu loolu rek laay laaj nous on s'est on s'est basé sur que dit la constitution constitution dafa ne les ressources naturelles appartiennent au pays mm -hmm. appartiennent au au mhm. du dëgg waaw yow sa am am amoo ci droit gëstu ci a ah, amoo droit xalaat ci. si si amoo droit joxe ci sa avis. Ah, si eh bien si. waaw eh mais mais mais, mais non li nga wax. a cela nous concerne c'est un patrimoine boo xam ne. non li nga wax dafa alerté ne kat. ne kat man dégg naa lii. waaye mbir maa ngi nii. mais tontu nga ci li ma la laaj. ngeen par rapport on a ah. le staff lui a dit. monsieur le président. dans cette affaire là vous avez carte blanche. Uh-huh. parce que. nous avons cheminé avec le président Moussa Diop depuis 2009 on le connaît xam na ne du nitu caaxaan xam na ne li muy wax fu ne y une véracité qui plus est parce que c'est un homme de droit jeex na ñun bu ko tegee foofu mais on lui donne carte blanche daa fuyul le principal d'abord le principal est la présidentielle wax bi yëpp mooy le parrainages fu ñu toll nii parrainage ak sa caution nga dem nga déposer xaar conseil constitutionnel tout ce qui loo xamante ne day concourir à m'écarter de ça mooy le principal buy Badara di wax du ma si dugg quand bien même xamante ne que mun naa dem bokk nekk candidat am immunité bu may may ma wax ji pour dem outil ji le pouvoir moi ce qui me dans mon problème avec avec cette affaire là c'est le timing mmh. maintenant quel est le but quel est qu'est-ce qui est recherché est-ce que ce recherché Boubou le dit c'est faire le buzz être dans une situation compliquée pour pouvoir se sortir d'une situation ah, Euh, parrainage ak yu demee wala am na leneen loo xamante ne parce que les gens ne sont pas moi je trouve que faire tout ça pour aller en prison pour quelqu'un qui candidate à la présidentielle ça me pose un problème mhm. ça Alors, me pose un problème quoi de, de démarche pour conclure vraiment sur ce point très rapidement defe naa waaw selon li nga fi dégg waaw jërëjëf mhm. man selon li ma fi dégg ñu mën jàll ci beneen jàkkaarloo du Sénégal mhm. waaye échantillonnage représentatif bu Sénégal déglu naa Charles déglu naa Mal déglu naa Bouba déglu naa gajaga mais yaakaar naa ni que ni ñun ñëpp après analyse réflexion et conjugaison de plusieurs facteurs mun nañu wax ni que Moussa Diop ñun xam nañ ni li mu yor c'est du faux. déet waxuñu loolu. man man laa wax man. alors waaw man dama ne bu ma déggee yéen li ngeen wax. yëpp man laa wax. je conclus que maître Moussa Diop taxawul ci dara lu dul waxu nasaxa saxa te bu nekkee sama jeune frère comme il l'a di j'en profit pour <laughs> voilà te féliciter te remercier parce que bi ma jógee Blaise Diagne comme coordonnateur du lycée Blaise Diagne au sein de la coordination yow yaa ma remplacé yow ak sama yeneen jeune frère bravo et merci beaucoup et bonne chance pour la bu nekkee yéen ñooñu yéen a nangu maître Moussa Diop taxaw wax lii mu wax nii yëpp honnêtement dugal ngeen doom jàmbur beneen affaire bi ci nekk man tey dama yërëm maître Moussa Diop. il est en prison li tax ma yërëm ko. c'est mooy li mu nar a raté yëpp dafa bëri. ba pare ba ci cëppaandaw ga xam nga Idrissa Seck dafa doon wax jusqu'à l'extinction du soleil man damay wax jusqu'à yomal a ci ngol Moussa Diop du prouver lenn ci lii lu mu wax nii recherche de buzz ko ci dugaloon rek ak naxe mais il y rien de vrai dans ce que dit maître Moussa Diop. c'est-à-dire que kenn gënul ñàkk ambition nit kenn gënul kenn gënul kenn gënul non mais il pas laisser quand passer qu'on dise que tout ce que Moussa dit est faux encore une fois de plus grand mhm. je t'appelle à beaucoup plus de responsabilité je crois que le dossier est en instruction muy yow mhm. di man on ne peut pas ici dire que c'est du faux ou c'est du vrai. waaw mais est ce que man mii non dafa naan non je vous ai écouté. je vous ai écouté ayez au moins. non l'élégance non xëy voilà c'est voilà je le ici. que moom wóolu na li mu yor. Mm-hmm. sur le terrain juridique purement juridique dëkk bi yëpp dinañ xam. Mm-hmm. Sénégal yëpp dinañ xam. Mm-hmm. mais sur un autre terrain. mais ça on ne peut pas gérer. on ne peut pas gérer on sur notre terrain. Uh-huh. donc leneen leneen leneen leneen li ci des mooy dama koy wax à la face de tous les Sénégalais. au moment où il fait la conférence de presse. wolof bi muy def conférence de presse bi on était à 62 500 signataires. sans doublon interne. dégg nga maam maanaam bu ñu jëlee sama mbokk yi ku ci nekk li ñu jël bu ñu la dajalee amul benn bu ci am doublon dañ ko raxas ba mu set wi ci teg muy 62 000 émission bi bi mu jàlleeg léegi. Hmm. nit ñaa ngi gën a ñëw. c'est-à-dire que les gens ont presque trouvé un signe de sympathie avec ce qui se passe on est aujourd'hui on a dépassé on a dépassé aujourd'hui les 65 000 on a dépassé les 65 000 parrains dans tout le territoire national suñu caution notre chèque de banque va être retiré mardi mardi notre responsable national qui s'appelle Boubacar Camara dina jàpp suñu caution ak suñu parrainage yóbbu ko taxaw donc Moussa Diop détrompez-vous. il est un candidat déclaré. loolu rek on tient à ce que tous les sénégalais xam ko. d'accord dégg Macky bu ko jàppee jàpp na candidat bu ko bàyyee bàyyi na candidat. ñun loolu la ñu mën a wax. waaw alors on reste sur le terrain judiciaire mais mais 62 000 yu baax yu doublon. boo ko amee looy doyee leneen. ah mais on va avoir léegi on peut considérer. Mhm. c'est une précaution de plus qu'on a prise. mais man dama on peut considérer que yow. man mm-hmm. sama parti mën naa am benn benn benn fekk yow sa parti am le même parrain. daaf à partir de ce moment là. quest ki njëkk ki njëkk dugal. daaf mais ki ci toog ku ñëwee dañ koy recalé. waaw donc nga am réserve bu doy. boo xam ne ne ku ñu dugal nga jël kenn rocc dugal mais mais mais c'est comme ça qu'on fonctionne et depuis depuis plus de trois dafa am depuis plus dafa am lu ma de trois mois la permanence na na déjà ah, mais on dépasse ñoo ci des kii il faut conclure Ablaye euh, dama ne on a compris mënu ma joxe ñëw ma fi pour wax lu kenn xamul waaye ñëw ma fi pour wax lu nit mun a dindi. Mm-hmm. munu ma joxe les argumentaires scientifiques yi ma wax. Mm-hmm. ba pare di wax ni que saa jóob li mu joxe c'est du vrai. Mm-hmm. nañu waxante dëgg nag. man argumentaire scientifique yi ma joxe ba yomal xiyaama ci ngoon laax araf du ci dañ. ñëw ma fi pour wax nag lu nit xamul. waaye ñëw ma fi pour wax lu nit mun a dindi. Moussa n'est pas Moussa n'est pas un géologue. s'il te plaît Moussa n'est pas un géologue. Moussa n'est pas sur ce terrain scientifique là. Xaymot Xaymot Xaymot s'il te plaît. Xaymot Xaymot s'il te plaît tamit Xaymot Xaymot Xaymot. lui Xaymot dit que. Xaymot non terrain n'est pas suffisamment. Xaymot Xaymot Xaymot donc xamuloo Xaymot daaf. Xaymot <laughs> faut arrêter je vous en prie. <laughs> la passion après. on reste sur le terrain judiciaire.